nun ndaw ñi sunu yaakaar ñu wékkaat ko kàttanu yàlla ak sunu mbaaxu kilifa surtout jamono yi bari na lool lu nit ñi tiisoo jëm ci génn bi ndaw yi génn jëm ci yoonu géej pour dem Barcelone wala Barzax géej amul fu mu yem soobu ko te sooboo woo ko jumtukaay bu yéwén yaa ngi sànq sa dund te wuti teraanga la tax a jóg waaye wuti teraanga na ànd fekkeek tal ñi sànku ci géej yëpp. ci géej yëpp. ci njabooti ndaw yi. ci njabooti ndaw yi. ñu ngi leen di ñaanal. yërmande yàlla. yal na leen yiir. ak njéggalam. ñi yàlla dogalit. ñu am mébétam dem. nañu leen ñaan. ñu tekki. seen yoon. te ñëw. àndandoo. ak waa réew mi. liggéey réew mi ñu ñaanal nag sunu kilifa yëpp yàlla defal leen ndam ci yoon wi nga xamante ni mooy tax Sénégal ku nettal ko